donc kii sax xam naa ni moom danaa la ci ñamal tuuti nangu mm-hmm. nangu mën a wax yi ma bëgg wax waaye dinaa la ci ñamal mm-hmm. ndax émission bee ko laaj eh, gis nga fi ñu toll nii yi daan xew ci xale yi génn di taal yi fi jàmbur ak ak di jël yi fi jàmbur ak yu demee noonu pourtant du caa génn moom kàddu boppam képp moo gën a xale yi mm-hmm. kàddu boppam képp du moo génne xale yi. da moo génne ma ko bokkal ñëpp ndax ñoo bokk lu ñuy wax bu bu nu ko nangu ne réew mi jóg nangam ak nangam est-ce que moom rek moo doon wax loolu. xam nga waxuma de bu wu ma ci yeneen yi ñu koy reproché ak yooyu waxuma yooyu mais bu dee xale yi ñuy génn yenn xale yi di def yi ñuy def nii waaw responsabil responsabilité bi du moom rek. ah responsabilité ko ma ak kan la. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñan ba ci man mii ci laa bokk. ah ñun ñëpp kon. ñun ñëpp ñun déedéet. waaw ah waa yow de responsable nga sa kër boobu responsable <laughs> mais li ma la bëgg a wax rek. da nga bëgg a ne c'est une responsabilité ñëpp képp kuy responsable de famille mbaa responsable parce que amul kenn xale ay xale yuy génn bëgg a yàq dara ci sa côté nga dugg tëju mbaa ñi moo dawal sa oto ñi moo dawal sa oto déedéet maanaam nit ki bu fekkente ne que yow dëkk nga cib koñ ay xale génn fa bëgg faa def lu dul dara waaw danga war a génn. lu tax ngay bañ ko la xaañ baa ngay kii. mais gis nañ xale yoo xam ne dañoo nandal seen bopp ci doctrine am doctrine doctrine am. gis nañ xale yi taxaw ne su ma sama sëriñ waxoon Sonko wax ma. mais loolu loolu ña koy wax. ña koy wax est-ce que am nañ sëriñ. ah loolu wala sama papa ak na gis naa xale bu ne sama papa sama yaay buñ ma waxoon li ma diw wax laay def est-ce que. Euh, yow yow. man loolu du ma jaaxal. Hmm. non man loolu duma ma jaaxal. dafa am ci man am nga am nga ay xale. man loolu kan wax nga ko sànq dund nga ñaari situation ennui judiciaire euh, da nga ne nañu def lu leen nañu def li li waaw li li yoon wax euh, est-ce que quelque part aussi moom du woon responsabilité am euh, puisque bu waxee moom rek ñëpp ñi mu ko ànd ñëpp ñoom ñi waxoon ñëpp kaay may mun dëgg boo koy boo koy wax bul kii nee naa la du rek mbooloo la ñu bu waxee ñi mu àndal la mu wax la ñuy wax comprendre nga waaw ku ko condamné condamné bu dee ci domaine boobu ku ko ci condamné condamné ñi mu ko àndal ñëpp ñi ci wax ñëpp waaw ñi ci wax ñëpp ci parti beeg ci coalition ci coalition beeg ñëpp rek. Oh, donc waruñu yem ci moom. déedéet non non bu fekkee dañuy vraiment bu fekkee ci domaine boobu la waruñoo yem ci moom rek. Hmm. responsable yi dañoo bari. bu Ousmane nee nañu génn ma Demba ni nañu génn ma Samba wax ko keneen ak keneen wax ko waaw wax nga dëgg de. <laughs> ah non loolu lii ma la wax kay dara du waaye man nag man li may wax li may wax dafa garaaw ca kanam la duma ko wax ci fii de. Hmm. man li ma nar a wax man non du ma ko wax ci émission.